Amadou Ba ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo xamle woon ne am nañu lu toll si ñetti millions ci ay parrain ñeel rek kon lii di élection présidentielle yu février gannaaw ba ñu ko invité ca 7TV ci émission bii di face à MNF mu di Maimouna Ndour Faye moom Cheikh Yérim Seck di journaliste doon itam analyste politique ak lii di écrivain daal dina weddi chiffre yooyee waa Benno Bokk Yaakaar daal di wax ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñu ne 3,4 milliards de parrain la am su Cheikh Yérim Seck la coalition présidentielle bi daal di xamle tënkuwul wala bokk àndul ak réalité bi nekk ci terrain bi ci fàttali nag lu weesu kàddug Cheikh Yérim Seck yi moom Mary Teuw Niane mi bokkoon ci nguuru Macky Sall daal di woon na weddi xabaar boobee gannaaw ba mu xamle ne lu ni mel mënee su ko dégg te xel mënu ko nangu la ñu jàpp daal buñ sukkandikoo ci Mary Teuw Niane moo di li waral nguurug Macky Sall di xamle lii moo di dañuy waajal tout simplement lii di ab hold up électoral maanaam lajjal élection yi ba sàcc ko Mary Teuw Niane ne lu ni mel xel waree su ko mën a nangu sax ci jamono joo xam ne trois millions sept cent de parrain ñeneen ñi sax wala ki nga xam ne sax moom moo di candidat bi di wax lu ko ëpp waaye ak li leer ba leer mari taw ñaan ne kenn mënta déposer lu weesu cinquante huit mille neuf cent parrain amul dara lu ko mën a ëpp kon bu ñu nekkee di wax loolee dafay xaw a jaaxal nit ñi li ñu nekk bëgg a gëmloo askan wi moo di daanaka dañu bëgg wax ne jamono ji jàpp nañu li a lii di ab hold électoral bu ko defee ñu mën a ne ca ba ci parrainage bi daanaka nañu li ñu amoon ci ay parrain kon loolee mooy wane ne xaaju askan wi ànd nañu ak ñun mari ñaan ne loolee xel waree su ko a nangu ndax li ñu nekk di wax ni déjà rek mënees nañu jàpp ne moitié bi si ñoo daal di inscrire ci li moom moo di yi bu fekkente ne ñii ñu ngi naan trois millions ñii ñaan millions am na ñuy wax trois millions sept cent kon ci gis-gisu mari taw ñaan gannaaw jaaram ca lii di grand oral ca réew mi TV ci la daal di weet Ba ak waa coalition Benno Bokk